mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM ci émission gox bi dimanche bu jot ni leen koy amalee ci biir émission gox bi tey ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di bokk moomeel bu commune bu Hann bel mu di monsieur Babacar mbeng tey nag ñu am te mbégte bu yaatu itam dalal la tey ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM ñu bàyyi la nga nuyoo ak sunu mbokk auditeurs yi. waaw euh, asalaamaaleykum Mbemba maa ngi lay euh, nuyu di nuyu euh, régie bi donc équipe technique mais di nuyu également tous les auditeurs de Rewmi FM <laughs> donc di leen remercier également ci invitation bi <laughs> mhm. alors monsieur le dañ koy daal di dooree rek euh, gis nañ ni fan yi yëpp euh, ki nga xam ni moom moo di njiitu réew mi di président de la république Macky Sall mi ngi amal ay euh, tournée économique ci biir réew mi ni ki tey yi sax mi ngi ca diwaanu Fouta ni ki démb la door Fouta gi ni mel waaye laata loolu defoon na fi itam fële jëm diwaanu Kaffrine ak yeneen gox yi ni mel tey tournée économique yooyu nga xam ni noonu lañ ko tuddee lan moo si sa jàngat bu njëkk en tant que maire. waaw euh, xam nga la chef suprême des armées. Uh-huh. donc muy le président de la république. donc ki nga xam ne moo yilif réew mi. Uh-huh. Euh, buy def tournée économique euh, dafay loo xamante ne lu jaaru la. Uh-huh. parce que moom dafa am mandat électif maanaam réew mi ñoo ko jiital. pour mu nekk chef d'état. alors mu ngi def tournée économique mais également tournée politique. ah bon bu ma nee tournée politique. Mhm. mooy tournée boo xamante ne mi ngi fësal li nga xam ne euh, boo gisee ci ay réalisation yoo xamante ne askan wi ñu ngi ko doon xaar. Mhm. ah muy loo xamante ne aussi euh, lu jaadu la. Mhm. en tant que président de la république bu ñu la falee. mu am euh, attente yoo xamante ne boo xoolee toutes les localités du Sénégal. ñi ngi koy xaar boo demee tey Podor. am na mhm. tali bu am solo boo mhm. xamante ne réaliser nañ ko. Mhm. san compter voirie yoo xamante ne entretenir loolu dafay faciliter mobilité bi. boo jógee benn dëkk dem beneen dëkk. am na yeneen gox yoo xamante ne jaar nañ fa bu yàggul ma nga woon Kaffrine. ñu teg fa benn hôpital boo xamante ne bu am solo la également. donc man damay jàpp ne que euh, objectivement. Euh, en tant que chef d'État c'est normal. que muy def ses tournées politiques. pour euh, rassurer partenaires également au parce que dafa am luñ ko investir am luñ ko dénk. pour que mu wone ci biir mobilisation bi que lii nga xam ne moom la réalisé. méngoo na ak la nga xam ne moom la askanam doon. bokkoo si ñuy wax euh, tournée éco euh, politique euh, dañu jàpp ni mbir mi dafa am connotation politique bu ci rax. xam nga dama la ne économique politique. donc politique bi mënu cee ñàkk. parce que politique moo ko fal. loolu dafay loo xamante ne lu ñuy nangu la. mais euh, li nga xam ne moom la xel mën a nangu tey en tout cas le prétexte nangu nañ ko mais jàpp nañ ne que politique aussi mi ngi ci est-ce que jamono ji la ko waroon def est-ce que nekkul ni di préparer wàcc ay élections locales yi ngir ay ñoñam def di def comme mel nii directeur campagne ci coalition bu mu bokk ndax euh, yéen jàpp leen ni ci jamono joojee itam nekku leen itam di di mu ngi leen di nelawal waaw mais gis nga li nga wax noonu mooy li xel nangu Euh, chaque sénégalais doomu réew mu nekk war nga mën a comprendre bu ñu nee tournée économique man de toute évidence bu ma ko déggee damay comprendre ko politique la te boo demee ci localité yi. Mhm. boo xoolee ña nañ koy teeroo ak couleur yañ koy teeroo nga xam ne fii loxo politicien ma nga ca donc déjà mobilisation bi accueil bi. Mhm. dëgg la la muy def am na solo. Mhm. loolu. lu lu ñuy rafetlu la. Mhm. mais beneen côté bi nga xam ne aussi dafay loo xamante ne dafa rax politique. Mhm. bu baax a baax. te kenn mënu ko dindi. te loolu du deñ muy loo xamante ne xel mën naa nangu ne que kii dafa ñëw pour renforcer équipe am. Mhm. maanaam gën leen préparer. ci campagne. élection yi ñu jëm nga xam ne ko moom. en tant que président du mën a battre campagne. du moom mooy nekk maire Podor. du nekk mais ay bu doon sagoom ay nitam toog fu ne. donc moo tax ma ne loolu politique def ci rax bu baax a baax. kon tey monsieur Babacar Mbengue la ñuy dalal bokk moomeel bu euh, Hann Bel-Air dugg ci waxtaan bi di nga xam ne moo jëm ci wàllu commune boobu nga xam ni itam jiite nañ ko élection locale yooyu nga junj mujjanteel gi dinañ ci ñëwaat wax tey ci commune bi commune bi ba nga ko jiiteeg ba tey tey mën nañ jàpp ni lan lañ mën a jàpp ci commune bi ginnaaw ba nga ko yoree ba tey. 2009 ba léegi euh, li ñuy njëkk a wax kooku suñu devise la mooy une commune dans l'action. yaa ngi ci. waaw c'est-à-dire que loolu du slogan rek. Mhm. boo doxoon yow sa bopp nga tourner dans les différents quartiers. Mhm. de Hann danañ la nekk ah ñun day wax dëgg yàlla sentir nañu importance su. Mhm. collectivité locale bi dans sa mission. maanaam équipe municipale bii fi nekk tey. ci la nga xam ne moom dañ koy xaar parce que dafa lu may faral di wax nag. mooy nit danga nga koy évaluer ci lañ ko dénk. Mhm. maanaam ci ay compétence mhm. bu fekkee ne ci wàllu éducation la. Mhm. ci wàllu sport la. ponk boobu la ñuy daal di njëkk a euh, junj. éducation tey atum 2009 ba tey 2000 atum 2021. Euh, am na la nga fa fekkoon ba ngay ñëw atum 2009. Mhm. ak tey 2021 monsieur le maire tey ci wàllum éducation lan nga ñuy wax ni loo xam ne itam tey sa loxo mën nga fa teg sa loxo loo xam ne itam fii yow yaa def loolu. Hann bel dafa bokk ci Grand Dakar arrondissement Grand Dakar. Mhm. di six communes fii la première école publique. Hann mhm. bel la te lii ma lay wax ni c'est de par résultat en 2009 boo doon xool résultat wu CFE yi. donc euh, mooy dernière classe élémentaire. ñu ngi doon tourner aux alentours de vingt quatre vingt cinq pour cent. tey Hann bel mi ngi autour de quatre vingt dix pour cent de résultat donc loolu dafa am lu ko firndeel. lan moo ko organiser nañu. forum de l' éducation. jël tous les acteurs de l' éducation pour leen éducation fii ci commune bi daf fi sooxe lan mooy solution bi parents d'élèves bi jàngalekat bi teew directeur d'école bi teew ki nga xam ne mooy inspecteur de l'éducation et de la formation teew ñii nga xam ne bàjjenu gox ñooñu leen délégués de quartier bàyyiwuñu kenn ba ci acteur associatif yi ñu ne leen lan mooy solution bi ñu jox ñu benn feuille de route te ba ñu toppee feuille de route ba léegi looloo tax ci biir école ñu def ci sax yoo xamante ne amul ci yeneeni commune lu jëm ci wàllu par exemple bourse pour les élèves ouverture des classes dañuy identifier un group mmh. deux mille élèves bénéficiaires yoo xamante ne dañ leen identifier ci benn comité mhm. du maire mooy tëju ci bureau rek joxe ay tour comité dafa am benn cadre boo xamante ne mhm. inspection de l'éducation et de la formation moo koy superviser mhm. avec les directeurs d'école ñu énumérer ay tour daal di lim deux mille bénéficiaires yoo xamante ne c'est des cas sociaux ñun dañuy indil ñu bind ñu joxe leen couverture maladie universelle la totalité des élèves qui son à l'élémentaire y compris hort jël nañ ci mille ñoo xamante ne ci daara nañ bokk mhm. ñooñu aussi am nañu couverture maladie universelle ci biir wàllu fourniture d'école mhm. dañuy wax ni chaque jour day tardé sabas baa du tardé waaw loolu dafay loo xamante ne danaa ci sawar a wax mhm. parce que ñun bu école di tijj ah dañ koy organiser des les premiers jours de l'ouverture parce que bu ñu nee ubbi tey jàng tey loolu dama daan slogan la mais dama daan yàgg di wax ne ubbi tey jàng tey grève une semaine après amul njëriñ. Mhm. donc ubbi tey boobu amul impact. ñun dès le premier jour. Mhm. dañuy créer toutes les conditions d' abord pour que école yi mën a démarrer. Mhm. ñu mën a egg si foofu foofu aussi même euh, ba occasion la. pour que ma remercier tous les acteurs de l' éducation parce que njàng. dafa am solo ci réew. éducation. c' à dire que bu ñuy wax waxu développement dafa am ñaari baromètre benn bi mooy éducation beneen bi mooy santé. Mhm. mais ci wàllu éducation boobu def ci am loo xamante ne ñun tey mun nañu toog wax ne loo xamante ne suñu fierté la. Mhm. mais yemuñu foofu dem nañu ba au niveau de Hann bel dañu renverser la tendance. parce que képp koo xamante ne amoon nga mbébét sa doom. Mhm. nekk biir école di jàng école privée nga koy yóbbu ndax résultat bi ndax rigueur bi. yàlla def na au niveau de Hann bel les parents d'élèves léegi dañuy génne seen élèves école privée mhm. pour dugal leen biir école publique loolu xanaa exception la léegi waaw mën nañ jàpp ne exception la mais en tout cas lii ma lay wax mhm. dafa nekk loo xamante ne en la mhm. et au niveau de l'inspection ñoom ñi ngi jël def benn focus actuellement sur Hann bel parce que dañoo bëgg jël école Hann bel comme une école modèle donc c' est pour vous dire que am na amélioration yu ñu fa def. Mhm. am na nag yoo xamante ne aussi yu des la. lan moo ci mais li ci des. Mhm. non li ci des mooy peut-être mën a assurer surtout une équipe dynamique dans les écoles pour l' entretien xam nga entretien dafa bokk ñun ci suñu culture c' est un problème. juste dañuy defar tey. Mhm. nga am ñuy liggéey. mais ñun suñu préoccupation loolu la. dem nañu ba dans la vision des classes yi nga xam ne nekk nañu en classe d' examen. nekk ñu table yi nga xam ne A2 la. boo waree école publique yi. Uh-huh. boo demee classe de cm uh-huh. pour que ñu mën a créer les conditions pour que élèves buy génn élémentaire am une bonne préparation. Uh-huh. déjà table individuelle la nekk. donc c' est vraiment. préparé ngeen leen daal. ah euh, oui ok waaw donc am na yokkute ci wàllum éducation bi. njàng éducation mhm. éducation franchement. Mhm. on a eu de belles performances ñun nag dañoo am li nga xam ne. Mhm. mooy ambition pour njàng. am nañu ambition pour vraiment développer l' éducation. et surtout soulager les parents. ok bari na école yoo xamante ne da ngay gis élèves yi bu ñuy jàngi parents yi dañ leen naan. jox leen ñu cent franc jox leen ñu deux cent dañoo war a def ay photocopie ñun école yëpp dañ leen équiper ay photocopieuses jox leen papier Euh, feuille blanche. Mhm. jox leen cartouche. Mhm. pour que ñu mën a fonctionner. dem nañu ba craie bi ñuy bind ci tableau yi. Mhm. le collectif des directeurs d'école ñoo ñuy indiqué ban façon clé mooy craie de qualité. pour ñu def ko ci donc c'est pour te dire que. ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu def. egsi nañu en tout cas niveau boo xamante ne mun naa ne. complicité moo am. Mhm. entre l' école. Mhm. et la municipalité. ok kon ci école bi am na amélioration ci wàllum pàcc bu ñu ñëwee ñu ci bari dañuy faral di wax naan collecti yenn ci collectivité locale yi euh, assurer santé gi war des fois day problème la fa ca commune ndaxam am yokkute ak performance am na foofu. alors il faut que ñu comprendre que bu ñu nee santé problème la. Mhm. il faut que ñu xam ban de santé. parce que la nga xam ne mooy mission wu. hôpital de niveau trois. boo demee Abass Ndao boo demee Le Dantec et autres waroo ko mën a compla euh, waroo ko mën a comparer. ak nos centres de santé. wala nga dem ak poste de santé mission yi du benn. ñaata nga fa yor yow. ñun ñu ngi am quatre structures de santé. loo xamante ne lu rare la. ci biiru commune. moo tax dañ koy sentir ci suñu masse boo xoolee la plupart des communes. peut-être benn structure de santé nañu am boo xoolee la carte sanitaire benn centre de santé nañu am benn wala ñaar poste de santé ñun dañu am deux postes de santé am deux centres de santé muy loo xamante ne lu ñu sentir la benn bi Mariste la Mariste muy une nouvelle agglomération bi nga xam ne euh, besoin bi mi ngi foofu beneen bi aussi mooy bi nga nekk centre de santé de Anne sur Mer bon boobu c'est un centre vieillissant bu ñu tabax en quatre-vingt-quatre 40 ans qui exige beaucoup en tout cas d'entretien mais en ce moment boo fa demee di nga gis ne que ñi ngi rééquipé def nañ fa par exemple benn rajo numérique ce qui n'est pas fréquent dans la plupart des centres ñi ngi changé laboratoire bi chaise dentaire dem nañu ba ci morgue yi dañ ko on a reçu le matériel dañ koy équipé en tiroir parce que avant morgue yi situation yu mu nekkoon lu doy la donc loolu yëpp dafay loo xamante ne dañoo gis ne c'était en fait un impératif. en tout cas pour que ñu mën a relever le plateau dem nañ ba groupe électrogène. dafay loo xamante ne c'est extrêmement important. juste jënd nañ ko pour installer que dans les structures de santé. donc c'est pour wax la rek que. en tout cas de ce point de vue au niveau santé au niveau éducation loolu dafa li nga xam ne moo nekk au cœur de notre mission te je pense que bu ñuy évaluer véritablement municipalité globalement en termes d'assistance aux populations mmh. ñaari secteur yooyu mmh. mooy secteur sociaux mmh. yoo xamante ne dafa am solo ci développement local mais monsieur le maire ce que yaa ngi xalaat euh, taxawal jumtuwaay goo xam ne itam euh, yaa ngi ko doon wax benn poste de santé wala centre de santé bu méngoog jamonoom ci biir commune bi balaa ñuy génn di dem mel ni Abass Ndao ak yeneen ñu mën a faju itam ci commune bu Hann bel loolu am na fa loolu am na fa boo demee centre de Mariste centre de référence la. Okay. aujourd'hui mhm. ñu ngi travailler. Mhm. à ce que Hann sur Mer. Mhm. mu mën a egg à peu à la même au même niveau que en tout cas ci même niveau de de service. public que les maristes. mais dafa am lu may leeral. boo demee Abass Ndao dafa am loo xamante ne boo demee ci centre Marc Sankalé. kooku c'est des unités spécialisées. loolu dafa bokk ci seen i mission mu dépendre de la ville de Dakar. lépp luy jabit foofu nañ koy jabet foofu nañ koy traité ñun par exemple on fait les premiers soins mm-hmm. boo ñëwee dans les structures de santé mais structure de santé mënuñu la fi tekk traiter des cas sérieux de diabète mmh. des cas de cancer mm-hmm. wala mmh. yeneen type de spécialité yu mu nécessité mm-hmm. moo tax souvent da ngay gis évacuation. Mhm. ñu jëlee ko dans ces structures de santé yóbbu ko soit. Mhm. hôpital CTO wala ñu yóbbu Dantec wala ci. hôpital yu mag de mhm. référence yi nga xam ne. en tout cas ñoom. loolu mooy li nga xam ne euh, am nañ ay spécialistes ñu fa nekk am nañu un plateau technique parce que aussi faju plateau la juste loolooy différence bi entre li nga xam ne. Mhm. mooy centre de santé. Mhm. ak euh, hôpital moo tax centre de santé mënul substituer wu ak hôpital. Mhm. centre de santé dafa am lu leer luñ ko dénk. bu patient ñëwee nga recevoir ko. def la nga war a def acheminer ko. vers li nga xam ne mooy les véritablement centres de traitement ñu mën leen jël. def leen une prise en charge convenable. de cook euh, poste de santé wala centre yi nga xam ne am nga ko foofu ndax am ambulance ba doy na parce que des fois itam askan wi ñuy nekk ci euh, niveau local dañ koy jàmbat bu bari bu nu amee yenn xët-xët yooyu noonu pour ñu am ambulance des fois dafay nekk problème ak yaa ngi wax ni sànq ni masse salariale bi nga xam ne am nga ko. Mhm. Euh, ndax dafay diis trop di génne di fay chaque fois bu ñu xoolee ni retour yi ngeen di am ci koppar dafay xaw a néew. alors euh, il faut que ñu xam ñun lan mooy suñu mission parce que dafa am loo xamante ne municipalité la. <laughs> dafa ute ah la nga xam ne mooy état central. juste bu ñu nee par exemple hôpital. <laughs> Mhm. dafa am lu ñuy xaar ci moom. Mhm. ñun par exemple dafa am lu ñu am mooy mission publique. defuñu bénéfice dans les centres. defuñu bénéfice dans les états civils. c'est-à-dire que dafa am un droit boo xamante ne moom la population yi soxla. ci seeni ñi leen jiite ci seeni municipalité mm-hmm. dañ leen koy defal mm-hmm. buñ ci doon def cent millions et que ñu am recette cent millions chaque année dañ ko war di mën di subventionner parce que loolu mooy assistance su population yi mm-hmm. donc loolu buñ ko def wax nga ko ci wàllu ambulance Mariste on n'a pas de problème am nañu deux ambulances yaraax nañ amoon benn ambulance bu commencé am problème. Mhm. mais là am na boo xamante ne danañ ko recevoir d'ici deux mois. Mhm. lancé nañu marché yi. Mhm. et pour vous dire que daf ci am loo xamante ne c'est compliqué même pour jënd ambulance. il a fallu que jaar ci ay procédures. mais dem uti autorisation à la présidence. donc tey mun naa ne egg nañu foofu. Mhm. et je pense que d'ici peut-être soixante jours. Mhm. danañu livrer ambulance boo xamante ne. Mhm. kooku laaj bu am solo la. parce que effectivement malade di nga ko am parfois dans des conditions. da nga koy soldé HML mais teewul. liggéey bi ñu war a def. centre yi ñu ngi koy def parce que ñaari centre dañoo dépendre de la mairie de Hann. bien que bu ñu amee évacuation ci benn unité bi. bu fekkee ne en tout cas. ambulance ba disponible. Mhm. beneen bi dafay ñëw. Mhm. en appoint. parce que su lépp ci biir commune Hann Bel-Air. mënuñu wax santé bàyyi itam Covid Covid ñëw na. déggoon nañ ci sa mairie am na taxawaay gi nga xam ni taxawee woon na ko ci ci jàngoro ji ba boo xoolee aan sax bokkoon na zone yi nga xam ni épargné wul nañ leen ci jàngoro ji euh, réponse boobu naka nga ko waajalee ak say équipe ba mun ci am jéego yooyu alors dafa am ñaari niveau côté riposte Covid boo xoolee rapport journalier bi nga xam ne ministère de la santé tous les matins daf ko daan def. Mhm. Euh, daan nga ci gis lu bare mariste mariste mariste. juste. d' abord euh, foofu jar na leeral que le centre. Mhm. dafa nekkoon un centre attractif. Mhm. maanaam centre boo xamante ne euh, ci liggéey bi nga xam ne moom dañ doon def. dañ doon def test de masse. foofu chaque jour daan doon dañ def cinquante. à cinquante cinq tests. boo ko comparé par exemple à centre bi nga xam ne moo nekk euh, au niveau de Yaraax. par jour daanuñu def sax cinq ou dix tests. donc loolu mën na justifier li nga xam ne moom moo ci am. mais aussi surtout rafetlu taxawaay bi nga xam ne c'est le personnel médical. le personnel médical les bàjjenu gox. peut-être occasion la pour que ma rendre leen hommage ci taxawaay bi nga xam ne def nañ ko mais di décerner également une mention spéciale à la Croix-Rouge de dafa am ci liggéey taxawaay boo xamante ne bu jotee da ngay gis ñi nga xam ne ils sont motivés. Mm-hmm. ñoo xamante ne dañuy daan demee avec les moyens de bord te euh, ku xool Covid bi ni mu meloon ci dëkk bi. Mm-hmm. nous étions tous exposés. mais chaque jour da gis ñoo xamante ne. Mm-hmm. dañuy dem am Covid dellu si waat. nekkaat dans la dynamique. Mhm. toujours di def ce travail de sensibilisation. Mhm. alors beneen bi mooy c'est vrai que commune bi taxaw na ci en termes d'assistance. Mhm. parce que il faut le dire aussi ñu bare ci Covid bi jàppoon nañ ne que denrées yi nga xam ne moom dañ doon joxe. il fallait que ñu associé à ce que denrée boobu li tax ñu joxe ko c'est que dañ doon créer condition pour que nit ñi mën a confiner wu. c'est ça. ceeb bi nga daan dégg. diwlin bi nga daan dégg saabu bi. état bi dafa jëloon mesure jël ay restrictions yu leer. ne dañuy dem def couvre-feu nañu éviter de telle heure à tell heure. Mhm. ci liggéeyukaay ñu wàññi effectif bi. Mhm. ñu gisoon ne ko aussi ci biir kër yi ñu bare perdre nañ seen emploi. Mhm. ci la collectivité local bi. daal di ñëw ne dañuy ñëw en appoint aux populations. ñu mettre en place un large comité mmh. où on a eu à faire plus de 3500 kits dans un premier temps en plus de l'apport du gouvernement mhm. pour assister les populations moo tax ñu yaatal ko def ko ni nga xam ne moom nañ ko defee mhm. mais li ci des aussi mooy gis ñu en tout cas les associations mhm. volontairement dañ doon dem di insister sur euh, la sensibilisation le port de masque les gestes barrières parce que Covid bi dafa eggoon ci condi ci contexte boo xamante ne. Mhm. ñun jaaxaloon nañu trop. man bu ma daan toog gis maris te maris maris au début. dama jaaxle dama woo médecin chef bi ne ko mais man j'ai problème. comment fait-il qu'on ait de cas mhm. mu ne c'est normal parce que yeneen postes yi bu fekkee ne dañuy tester cinq wala dix mhm. nous on est à cinquante voire cinquante cinq tests par jour par jour mm-hmm. donc c'est pour vous dire que loolu mën na ko indi mm-hmm. mais li ci des mooy profiter peut-être ci laaj bi nga ma laaj mm-hmm. qu'on reste vigilant mu ngi fi parce que Covid baa ngi fi ba léegi ba léegi bàyyiwuñu toujours nga gis ci rapport yi léeg nga gis ay cas grave léeg nga gis quarante cinq nouveaux cas nit ci bàyyiwuñ ci xel mais ñu gën a redoubler de vigilance parce que dafa nekk léegi un phénomène mondial muy loo xamante ne rek dañu ñaan yàlla mu jëlee ko fii nu mu gën a gaawee. ñu ne depuis kii bi test yi wala dépistage bi mooy solution bi vaccination bi est-ce que tey yow sa bokk moomeel bi nga doon yaa ngi sensibiliser euh, population bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum vaccination bi. alors vous savez le, le vaccin dafay loo xamante ne c'est personnel. Mhm. li ñu mën mooy demander au gens man souvent bu may toog di waxtaan ak ay nit. Mhm. bu ma leen laajee. bu ñu mënee vacciné wu dama leen naan mais il faut que ngeen dem. je sais que nag ñu bare ragal nañu. Mhm. et looloo tax dès ko vaccin yi egg si en tout cas le ministère le chef de l'État comme le ministère. Mhm. nous a demandé à ce que ñi nga xam ne c'est des leaders. Mhm. locaux ah gis nañ a photo ko ci biir voilà ñu foto pour rassurer nit ñi et gën a inciter leen à ñu def ko. man def naa samay ñaari dose vaccin te gis naa ñu bare aussi ñoo xamante ne def nañu seen ay vaccin et wax dëgg yàlla. xel war naa mën a nangu. Mhm. ne que vaccin bi nekk na benn début de solution. Mhm. par rapport ak li nga xam ne moom la nit ñi xaw a jaaxle. ok mais ba tey nag. am na ñoo xamante ne bon ragal nañu. ragal nañu waaw mais man li ma leen di ñaan mooy benn risque amu ci. Mhm. nañu dem vacciné wu. parce que loolu mooy la solution clinique. boo demee au niveau de l'OMS les recommandation mooy vaccin. di nga gis ne que réew yu bare danañ ubbiwaat nit ci danañ reprendre voyage. daañu certes demander test PCR. Mhm. mais la nga xam ne moo ciy jiitu. vaccin la plupart danañ la laaj sa carnet vaccination. juste donc vraiment que nit ñi mën a dem vacciner wu may profiter ci plateau bi. Mhm. di demander en tout cas aux populations de Hann. Mhm. ci discipline bi nga xam ne moom lañ ko daan defee. ñu mën a dem rek vacciner wu dans les structures de santé. ok alors monsieur le maire ñu avancer tuuti wax nañ ci li nga xam ne moo jëm ci éducation wax santé. léegi li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu infrastructure yi ci niveau Hann Bel-Air parce que ay euh, jamono dañ doon dégg ni dinañ ci raaxaale mbirum insécurité insécurité amoon na fi li jëm ci wàllum itam jardin public yi. Mm-hmm. Euh, tey gis nañ ci benn projet bi nga xam ni mairie bi mu ngi koy def ci diwaan boobu noonu tey est-ce que mën nañ wax ni Hann bel bi nga xam ni moom nga jiite euh, mi ngi am ay amélioration ci wàllum infrastructure yooyu. alors bu ñu nee infrastructure. dañ naan plus cadre de vie. Mmh. parce que léegi da nga wax lu jëm ci wàllu jardin public. Mmh. yooyu dafay aménagement yoo xamante ne. Mmh. cadre de dafay defar dëkkuwaay. dafay defar dëkkuwaay mais dafay créer sax benn cadre de partage un cadre social. boo xamante ne wax dëgg yàlla ñi ngi ciy dem. ñi ngi encourager en tout cas initiative yi aux associations. parce que boo jëlee quartier bu mel ni quartier maris c'est plus de trente-deux Euh, quartier yi ñoo xamante ne bëgg nañ ci def alors ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci def mairie bi aussi mi ngi ciy waslu axa nànk-nànk mais peut-être pas comme nga xam ne moom la nit ci doon xaaree li may faral di wax on les accompagne donc li may wax mhm. mooy ñi ngi ciy def nànk-nànk mais li nga xam ne véritablement en tout cas ñun mhm. mooy suñu problème euh, à Hann bel mhm. c'est surtout les occupations irrégulières ok foo ci toll occupation irrégulière dafay loo xamante ne dama jàpp ne. c' est un problème global. parce que dans notre culture da ngay gis ku ñëw rek occupé. Mhm. commencé liggéey. Mhm. boo ñëwee laaj ko am nga autorisation mu ne la ah man boroom kër laa. Mhm. damay daan doole. am na loo xamante ne mënuñu ko accepter. et ci loolu nañu nekk c' est permanent. da gis nag li li xale yi di wax dóor daaxe la. da ngay ñëw dindi ñi nga toog circuler feneen. dem fekk waa ji installé waat na feneen. boo nga jëlee ko foofu mu daal dem. donc mhm. yooyu dafay loo xamante ne. en tout mhm. cas li li ma jàpp ne mooy solution bi mooy aménagement bi. Mhm. parce que di nga gis espace bu ñu aménagé. nga ñëwaat fa quelque temps. tu te derrière. am na association yoo xamante ne farlu nañu. dañuy jël initiative toog ñu gis ñuy aménagé. Euh, bërki démb maa ngi romb en tout cas euh, et c'est le moment encore remercier surtout. Euh, auteur d'esprit wu nit ñi. boo xamoon caaroy automobile am na suñu benn doyen bu fa nekkoon mun naa ne presque la plupart des jeunes foofu nañ ñëwoon di jàng. Mhm. jàng mécanique. Mhm. biir yaraax mais bi ñu demee ba nga xam ne restructuration bi ñëw. Mhm. ils ont accepté volontairement ñoom volontairement. sans que ñu dédommager leen à ce que ñu dem relocaliser wu feneen. ok mais tey boo fa demee. association yi ñoo jël ay initiative aménagé ci devant. changé xar kanam bi. donc c' est pour vous dire que. dafa am loo xamante solution bu amee rek. mooy population yi. Mhm. ñoom seen biir ñu ngi waxtaan. Mhm. ak association yi. Mhm. donc loolu dafay exemple am na yeneen cadre yoo xamante ne. ñëw nañ def fa. yenn investissement mais da leen di defal dem nga gis ne que bon suivi bi aussi des na am na fu mu sooxee balaa ñuy dugg ci euh, sécurité bi gis nañ itam aan ku ne aan wax entreprise yi nga xam ne nag tey moom moo fa nekk ba des fois da ngay dugg euh, cohabitation bi dafa am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ndax yaa ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom entreprise yooyu noonu xataay dëkk bi ak yan fànn la ñu war a jaar ngir euh, mën a gën a yombalal dem beeg dikk bi nga xam ne moom moo am ci bërëb boobu Euh, entreprise yi. Mhm. damay leeral barewul ñu ci am njariñ. Ah. xam nga entreprise no c'est important je le dis te dama leen koy wax toujours. ah bon c'est-à-dire que entreprise bu ci am audience publique. Mhm. dana ñëw seet la. nga daal di ko mettre en rapport avec le comité bu ñu toogee ci audience publique yi ñu digg lu ne. dana jël engagement ci lu ne. Mhm. mais bu ñu xasee ba seen audience publique jàll. dootoo leen gisaat dootoo leen déggaat. le problème qu'on a dans ce je pense que foofu j'espère que réforme yi nga xam ne. mi ngi ñëw. danañ mën a def en sorte que commune yi mhm. am une responsabilité c'est-à-dire que ci biir entreprise yooyu mhm. ba ma responsabilité la waxin ñun suñu objectif mooy que entreprise bu war a tijj mhm. mu am loo xamante ne commune bi ci décision bi nga xam ne moom moo leen di autoriser à ce que ñu commencer ñu exploiter. la position de la collectivité soit déterminante mais di nga toog. gis koo xamante ne dafay dem def son montage financier un investisseur dem à la banque dem jëndi terrain am ñëw yow lenn nga ciy am. Mhm. bu bëggee tabax. te tabax bi autorisation autorisation de construire te kooku urbanisme mooy instruire de telle sorte que yow bu ñu leen indil kayit yi. Mhm. lépp luy avis muy domaine cadastre feneen ak feneen. Mhm. indil nañ la ko. donc yow da ngay signé. boo signé wul trente jours après. bu demee ci préfet ñu signal ko. alors loolu. dafay xaw a doy waar. Mhm. parce que bu ñu la nee industrie yaa nga fa. bari na fa boo doon wër Sénégal. Mhm. commune bi ëpp industrie. Mhm. commune Hann Bel-Air gisoo leen ci seen bopp yéen commune mais ci biir. Hann Bel-Air mun naa ne chaque jour nga gis véhicule personnel. ñëw gaare ci entreprise wàccee ñu jël yóbbu. boo xoolee lay lig la ñuy jël ci commune bi. c'est peut-être lu amul benn importance. dafa néew. par rapport mm-hmm. ak la nga xam ne moom la commune bi waroon a mën a jël mm-hmm. ñun loolu mooy li nga xam ne da ngay xool aussi ci taxes yi impôts yi mm-hmm. li nga xam ne mooy patente mooy li ëpp solo ñun duñ ko recevoir ah bon ah donc c'est pour te dire que réforme yi du seulement réforme fiscale mais c'est-à-dire que du point de vue même dangay ngay xool occupation foncier bati daf ci am lu bare loo xamante ne ñun waroon nañ ko recevoir recevoir ituñu ko yenn yi ville de Dakar nañu jël jox ko donc c'est pour vous dire que du point de vue de la répartition du point de vue des réformes bu ma jàppee ne ci acteurs yi war nañu mën a jël ñu mel ni ñun ñu toog Hann bel dafa am problème on a le port autonome de Dakar bu nekk à proximité commune bu ci nekk ak spécificité wu boo demee Jëppal c'est le marché de Castor boo demee Médina marché Médina nga fa boo ñëwee Hann bel problème bi ñu am c'est le gros porteurs les camion proximité bi nga xam ne moom nañu am mhm. avec le port autonome de Dakar te bu ñu nee port autonome de Dakar mhm. li ci bàyyi ci xel mooy port de Dakar dafa amee statut boppam mhm. amul territoire ok mi ngi biir Hann mais bokkul biir Hann et pourtant mobilité bi trafic bi ngay gis route de Rufisque ñu bëri jaaratuñ fa à cause des mais ñun ñoo koy subir mu am ay impact négatif et en retour c'est-à-dire que recevoir tuñ ci dara donc bu ñu la nee réforme war na am. Mhm. de ce point de vue. kon yàkkamti ngeen ko mu am mooy dafa am. Mhm. oui mais na am. Mhm. mais nañ ñu woo fi ñu fekkee. parce que les problèmes sont spécifiques. li xew à Hann na ax la nga xam ne moo xew ci beneen localité. mais nga ñu toog fekkee ñu laaj ñi suñu avis. ñun ñu wax ñu tëni ci kon ñun danañu mën a permettre ñu gis ci suñu bopp. l'emploi des jeunes dafay loo xamante ne les en parlent mais ñun Hann bel entreprise ya fa nekk yëpp. bu amoon disposition yi ñuy jël ne chaque entreprise na recruter au moins dix pour cent de sa population locale. mais on a plus de trente-trois cent entreprises kenn waxatu ko. kon donc mbirum RSE yi ñuy dugal kon moom. xanaa oh, dafa néew. yooyu man gëmuma loolu gëmuma RSE li ma gëm mooy y des entreprises yoo xamante ne c'est-à-dire que dañ leen ràññee ci loo xamante ne dañuy def œuvre sociale. or boo leen solliciter. ñoom dañuy ñëw. xam nga mun naa lim peut-être benn mhm. entreprise bu mel ni Petrosen mhm. Petrosen wala bolore lépp loo xamante ne population yi association yi dañ leen sollicité mhm. ñoom dañuy considérer seen bopp comme des Hannois parce que dañu ne bu ñu xëyee ba xëy si toog aan nekk seen bureau huit heures balaa ñoo génn dix-neuf heures dañoo jàpp ne le temps qu'il passe à Hann passé wuñ ko ci seen i kër yi te la plupart dañuy génn ñii dem Mermoz mhm. ñii dem Mbao ñii dem feneen mhm. donc loolu gis nañu ci am na ñu ci ràññee ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñi mhm. ñuy accompagner ci wàllu éducation ci wàllu euh, social ci wàllu santé ak yeneen ak yeneen et ñooñu da leen di lim matuñu peut-être dix entreprises au maximum am na entreprises yoo xamante ne toujours nga gis leen télé dañuy brasser des milliards mais bu ñu amee activité bu ñu bëggee def dañuy ñëw naa ne non dañu war a def dugg ci école bëgg jël ay xale duggal ci bus solal leen t-shirt man am na une fois ma ñëw fekk une si euh, benn scène bu mel noonu. Mhm. j'ai dit au directeur de l'école que ce sera la dernière fois parce que ñii ba njariñ lañ amal jël suñu doom yi. Mhm. yóbbu leen utiliser leen def ay ay mobilisation. Mhm. mais bu chef d'état rombé bu gisee dafay jàpp ne que ñii. peut-être que ñu ngi jàppale école yi. alors que zéro amuluñu benn njëriñ. donc c'est pour vous dire que de ce point de vue. il nous faut yu koy encadrer. Mhm. mais texte yoo xamante ne. Mhm. dafay imposer ces structures. Mhm. à ce que ñu liggéey avec les collectivités locales. kon jot na ñu indi ci ay saafara. ci wàllu wi ni mel donc est-ce que bu ñu la déggee ngay wax itam euh, xëy na faaw ñu avancer ci ponk boobu réforme yi buñ koy waxtaanee nga faaw ngeen toog itam. Euh, ngeen joxe ci seen position bu gën a leer ngir dërëm bi nga xam ne fay dugg itam entreprise yi mën koo séddoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mairie bi. xam nga loo xamante ne. Mhm. moom ngay pratiquer du lundi au dimanche. Mhm. parce que mairie amul week-end. Mhm. amul descente. du lundi au dimanche moom la ñuy dund. am na programme yoo xamante ne lu ñu xam la lu wér la dañuy wax di dox ak askan wi. dëkk ak askan wi. gars yi di am ay doléances di ñu mhm. poser mhm. ñu xam li mën a nekk mhm. xam li mënul nekk mais ci wàllu attente en tout cas ci entreprise yi waxuñu leen ne ñëw leen ngeen jël seen DG ngeen nomee ko mu dëgg an waxuñu leen nga jël ay euh, rang de directeur ngeen jël leen an mais dañu bëgg ñuy wax emploi bu ñu nee emploi kay dafay loo xamante ne dafa dënk lépp et je pense que loolu bis bu ñu amee occasion ak fu mu munti mën a doon mhm. def suñu ay recommandation de mhm. manière spécifique mhm. je pense que ñun danañ ci gis suñu bopp population yi danañ ci gis seen bopp mais surtout état bi nga xam ne ñoom ñooy apporter réforme yi danañ mën a gis en tout cas seen bopp man mii di wax ak yow Mbenda je suis un agent de l'état j'ai été élu pour les populations donc am na yenn cadre yoo xamante ne buñ ñu ci invité ñu toog ñu laaj ñu suñu xalaat je pense que la ñuy wax dafay loo xamante ne intérêt public la Euh, wax ci li nga xam ni moom a jëm ci wàllum infrastructure yi junjoon naa la ko tey tey al fu mu toll ci wàllum infrastructure gis nañ fi fan yi yaa ngi doon inauguré benn terrain bi nga xam ni terrain d'entraînement la bu ñu ko mënee tuddee mais mun nañ fa wala nawetaan itam. absolument mhm. alors euh, ci wàllu infrastructure comme ni nga ko waxee ah daf ci loo xamante ne lépp programmation la. Mhm. xam nga dafa am loo xamante ne dañoo amoon chance en deux Euh, je crois que en 2012 2013. ñu amoon la nga xam ne mooy plan d'investissement communal. donc euh, programme boobu moo ñu permettroon ñu déceler maanaam gis lépp loo xamante ne lu ñu soxla woon. parce que da ngay rencontrer euh, les représentants. Mmh. des associations représentant des femmes. restauration mmh. des des pêcheurs des mareyeurs parents d'élèves industriels autres. Mmh. et dans le diagnostic. boobu nañ gisoon ne que Hann potentiellement. quel que soit alpha mu am stade am un gazon dafa bokkoon non seulement ci benn demande mhm. des populations mais dafa woon un impératif pour pouvoir développer le football à mhm. Hann Bel-Air mhm. mun naa ne euh, am na plus de vingt ASC équipe d'élite am nañ ci deux ou trois domiciliés à Hann te amuñu terrain bu ñu footballé c'est vrai que booy waxtaan d'une manière générale dañ la naan la situation elle est globale dëgg la. fii Dakar bi ñu nekk amul benn commune bu am gazon amul. Mhm. y a pas d'exception mais bu fekkee ne tey ñun am nañu loolu. Mhm. danañ mën a permettre tey li nga xam ne mooy la petite enfance la ñuy wax ci euh, euh, euh, éducation. Mhm. éducation de université. éducation c'est depuis le préscolaire. l'élémentaire le l'élémentaire. le le collège. Mhm. ba lycée. Mhm. dafay loo xamante ne li ñu wax service à proximité. Mhm. nit ñi waratuñu génn benn commune. di dem di ko uti ci beneen commune. donc ñun ci politique bi nga xam ne moom ñu nekk di def. moom ci wàllu sport. Mhm. on a mis un gazon synthétique. Mhm. fu mu nekk nii ñi ngi waaj a préparer pour monter charpente. Mhm. def pavage autour danañu mën a permettre déjà. la nga xam ne mooy nawetaan ñu dund ko. mais notre ambition c'est pas seulement que le nawetaan. wala satisfaire la demande. c'est de développer le football. développer li nga xam ne c'est des professionnels au niveau de la FIFA. <coughs> léegi. am na ñoo xamante ne en termes de recrutement. dootuñu fi ñëw jël koo xamante ne am na dañuy ñëw identifier la à partir des écoles de football. Mmh. on a plus de douze écoles de football à Hann. alors imaginez-vous un peu ñooñu bu fekkee ne créer ngeen les conditions ñu leen di préparer. Mhm. donc c'est pour vous dire que dafay loo xamante ne c'est l'avenir même si tu veux de cette jeunesse. ok alors ñi ngi préparer nag un mhm. grand forum. Mhm. forum sportif. donc euh, mun naa ne les termes de référence sont bien avancés. mais bu ñu nee forum sportif ñu bari dañ la naan football dëgg la. Mm-hmm. am na ñoo xamante basket leen intéressé. Uh-huh. am na keneen koo xamante ne art martial moo ko mm-hmm. intéressé. Mm-hmm. donc on est en de voir entre quatre voire trois pôles. yoo xamante daañu dajale tous les acteurs. toog waxtaan. dajale ña nga xam ne xam nañ ko ñu wax lan nañu bëgg lan nañ ko xalaatee mhm. ñu mën a am en tout cas benn feuille loolu moo ñu mën a permettre mhm. d'arriver à ce point là mais c'est pour nous dire que ci wàllu infrastructure bon c'est une c'est une def nañ ci ay jéego vraiment dama ci remercier féliciter aussi ñi nga xam ne ñoom nañ ci doon liggéeyal mhm. mooy d'abord le mouvement nawetaan les présidents de zone les équipes d'ASC les populations parce que ñun aussi dundal nañ lu xaw a doy waar dañ daan dugg suñu oto dem président nawetaan Demba Diop. Mhm. wala dem président nawetaan Iba wala nga dem président nawetaan Alassane Djigo. da ngeen sori mais da ngay dugg sa oto. Mhm. def sa délégation ànd ak sa sécurité. Mhm. ngeen joué ba ay onze dellu si xam nga loolu mënoo ko dund rek. daal di ne bon lii wax dëgg yàlla euh, ñun ñëpp ci bokk yem et tout ça non. on a eu cette ambition. moo tax ñu ne écoute on va mettre cinq cent millions. rien que pour le gazon mu doon gazon de qualité mu permettre ñu def investissement boo xamante ne wax dëgg yàlla ku fa ñëw gis pelouse bi di nga xam ne que lii pelouse de qualité la ok pelouse de qualité alors monsieur le maire ñu àddu euh, ci yenn ponk yu mujj yi tey bu ñu waxee commune bu Hann Bel-Air itam euh, mbirum gestion itam lu ñu war a mën a waxtaanee la mbirum gestion foo ci toll gisoon nañ ay nit yi nga xam ne daan ŋàññoon nañ gestion doxalinu mairie bi ci biir commune bi tey lan nga ñu ci mën a indi ci lu leer ci li nga xam ne moom moo jëm ci tuuma yooyu nga xam ni tegoon nañ ko. waaw point boobu xam naa ne du ma ci mën a sori torop mhm. parce que took nañu effectivement euh, ñu gis koo xamante ne wax dëgg yàlla du benn du ñaar du ñett revenir ci yooyu on dans un pays de droit. Mhm. su fekkee ne tey man dama jugé que j'ai été diffamé mhm. mun naa def la ñuy wax sommation mhm. pour revenir ci laaj yooyu mu confirmer léegi ñu def citation à comparaître mhm. bu ko defee moom il a l'obligation dem génnee la la tax ay firnde mu wax loolu loolu kese donc du mu ci mën a sori donc c'est pour vous dire que loolu dafay loolu moo ci nekk ci wàllu gestion mais euh, pour man c'est pas un problème mhm. bu ma nee c'est pas un problème Hann Bel-Air est une mairie mhm. qui marche une commune dans l'action mhm. ñi ngi investir dans tous les secteurs à tous les niveaux et je pense que la ñuy def population yi gis nañ seen amul benn problème bu fi am tey on a aucun problème amuñu aucun problème de gestion euh, bu fekkee ne xam nga mairie na muy doxalee mairie da ngay xool tu as le conseil municipal tu as le représentant de l'État muy le le préfet mairie caa ki nga xam ne c' est l' agent comptable de l' état muy un agent de trésor public mm-hmm. kooku mooy ki nga xam ne moo koy gérer mairie am nga également li ñuy wax la direction centrale de marchés publics mm-hmm. en plus de la direction centrale des marché du public yaa mm-hmm. ngi amee l'ARMP mais chaque année dans ta gestion tu as la cour des comptes bi nga xam ne chaque gestion bu jeexee dañ leen ko fay yónnee donc c' pour vous dire que à tous les niveaux amul benn reproche boo xamante ne ñun am nañ ko donc damay jàpp ne que on a une équipe compétente mais mieux que ça am na benn anne année où DARMP dañu bind lettre de félicitation par rapport aux procédures mais ñu matériel muy photocopieuse ordinateur et ça pour nous en tout cas encourager donc c'est pour vous dire que de ce point de vue donc nous on n'a pas de problème ok dañuy ñaari question yi dañ koy boole tënkandoo ko tey li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum baie de Hann bi xëy na projet bi la yàgg nañ ko togg bokk moomeel nga itam am nga ci xalaat fu mu toll ba xam ay jéego ñu ngi ko fi def bilan bi ndax am tey c'est satisfaisant tey li nga atum 2009 ba tey yaa ngi ci bopp mairie bi tey boo ko doon tiire tey lan la. alors parler pour wax tuuti ci projet baie de muy projet boo xamante ne. Mhm. Euh, mun naa ne projet avenir assainissement wu région de Dakar la. Mhm. parce que dafa laaj plusieurs dafa laal plusieurs départements. Mhm. laal plusieurs communes. Mhm. mais man damay faral di wax vigilance. par rapport à ce projet. ah waaw danaa ne vigilance parce que euh, xam nga looy séenu. muy ñëw. nga gis muy ñëw loo xamante ne yaa ngi koy xaar buy avancer di ñëw da ngay kontaan. mais mun na ñëw ba egsi. ñu commencé. nga commencé poser wu des questions. Mhm. alors man. daa am loo ci euh, gis lu ñuul. waaw dama ci gis lu ñuul. Mhm. loo xamante ne ça je le dis ici. mooy mhm, euh, communication bi na mu war a demee. en tout cas entre. ñi nga xam ne mooy population yi la. ah entreprise biy liggéey. dafa am lu bari bari bari bari lu des. ok lu des. parce que damay xool ñun en tant que mairie. da ngay jékki-jékki rek ñu wàcc ci benn quartier. bu ñuy wàcc ci quartier ñun am nañu. organisation mhm. locale duñ leen yëgal lu mel ni CRAB mhm. localement nga xam ne que dafa regrouper euh, plus de quatre vingt associations mhm. c'est-à-dire que c'est le cadre des riverains yi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu concertation pour pouvoir réaliser ce projet de dépollution Baie Hann ñoom ñoo nekk di ci ñoom ñoo ko yor mais euh, difficilement nañuy communiquer par rapport à leur plan de travail et pourtant war nañu mën a am réunion de coordination amul mun naa ne projet ba mu léegi man bokk. Mhm. participer gu ma participer gu ma aucune réunion de coordination ce qui est problème. Mhm. beneen bi mooy l'impact du projet. projet bi dafa ñëw pour soulager. Mhm. lu jëm ci wàllu assainissement. te liñ ci jublu mooy bépp population boo xamante ne dëgg nga ànd. ñun c'est le seul volet social bi ñuy ñaan. ñu mën lañ brancher. connecter leen dans ce projet ñu xam ne que. projet assainissement Baie de Hann ñëw na et que chaque maison. léegi am na accès à l' assainissement. dafay loo xamante ne ñi ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne euh, ONAS la wax dëgg yàlla. am mm-hmm. nañu échange yoo xamante ne ça se passe très bien. Mm-hmm. ak ki nga xam ne mooy euh, directeur mm-hmm. généralu ONAS. donc di mbay. di remercier di féliciter aussi ki nga xam ne moo fi nekkoon. ki réalisé muy Lansana Gagny Sakho qui s'est beaucoup investi pour euh, ce projet. li ci des maintenant c' est qu'on développe des intelligences. ñun ñu am benn synergie. boo xamante ne. daf ñuy a permettre. Mhm. li may faral di wax ci service public. Mhm. la ngay def rek na nga méngoo ak lii askan bu ñu nee assainissement mhm. yi nga xam ne amaguñu woon da ngay xool bu mel ni ISRA 1. dafay quartier boo xamante ne ci fa mu tàmbalee moo njëkk da ngay xool yaraax sur trois kilomètres. village la woon. c'est-à-dire que assainissement amu foon. ñoom ñëpp bu ñu jëlee connecté leen dans le projet. je pense que mun nañ jàpp ne wax dëgg yàlla. population yi danañ gis seen bopp. ok parce que bu nawet bi ñëwee foofu nappe bi dafay yéeg. Mhm. c'est très compliqué. ok da ngay fay. Mhm. pour pour pomper et tout ça beneen bi. Mhm. wax nga ko ci wàllu euh, bilan. on a beaucoup fait. ok on a beaucoup fait. Euh, ci secteur bu nekk. ndax mun nañ xaar livre blanc. mais ñun danañ def loo xamante ne xam nga ñun. dafa am benn politique boo xamante ne man kooku c'est notre stratégie de communication mmh. on ne fait en trois d xam nga les belles maquettes la mm-hmm. réalisation bi ñëw ute mm-hmm. dafay loo xamante ne ñun duñu communiquer ci loolu ah bon ñun dañuy communiquer dans ce qui est mm-hmm. ñu ne lii bëgg nañ ko def en termes de sportif on a les maquettes ñu gis ne que war nañu def lii sa ça doit se faire sur trois quatre en tout cas ouvrage dans le même site bu paree ñu daal di ubbi nit yi dana mën a gis. Mhm. bien sûr maquette yi dafay loo xamante ne lu ñu baax la mais nga annoncé loo xamante ne ñëwagul dafay loo xamante ne dispositions yi jël nañ ko. Mhm. et je pense que en terme de communication. Mhm. li nga xam ne moom nañu wax encore bu ñu nee Hann bel une commune dans l'action. dafay wone clairement que ñun acte yi nga xam ne moom nañuy poser. tous les jours. dafay acte yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu nee avant après. parce que yaa ngi wax livrement xam nga boo nee livrement te euh, waxuloo exactement. Mhm. Euh, lan la livrement bi comporté. Mhm. il faut que mu leer. ñun la nga xam ne moom la ñu def c'est un document de bilan. Mhm. boo xamante ne c'est de 2014 yéen a ngi koy wàcc. ah ah commencé nañ ci depuis. ah on a une base très riche. ah oui depuis euh, des infrastructures voirie pavée. éducation santé équipement mmh. social mhm. euh, à tous les à tout point de vue okay. donc vraiment kañ ngeen koy jébbal askan wi waaw loolu dafa am liggéey bu ñu ci def mhm. c'est-à-dire que daañu ko jébbal askan bi au moment opportun mhm. dafa am benn waay bu ma waxoon ne ma waaw mais yéen dañ leen faloon cinq ans léegi ñu yóbbu leen sept ans bu ñu leen yokkalul woon ma ne ko déedéet ñun cinq ans yooyu bu matoon bu ñu demoo bu fekkee ne waroon nañ toog parce que on nous a élu pour cinq ans on nous a pas élu pour trois ans. cinq ans yi bu jotee danañu def restitution. Mhm. mais comme fu ma nekk nii dañ ko def pour sept mhm. loolu yëpp dafay loo xamante ne daañu gis na que am na réalisation yoo xamante ne du tey tey tey la mhm. tàmbali. donc c'est pour vous dire que on a fait un très bon bilan. muy bilan boo xamante ne dama ciy féliciter sama naataango yi tout le conseil municipal. et c'est ça la force du conseil municipal de que le débat il est très suñu biir. mu am beaucoup de contradictions mhm. mais ci biir contradiction yi dañuy gis ne que mhm. le débat est ouvert il est objectif mhm. mais on re, on se recentre toujours vers li nga xam ne mooy suñu mission bi nga xam ne population yi loolu nañuy xaar da ngay sampaat waaw loolu dafay loo xamante ne waxtaan la xam nga liggéeyu équipe la dañu jàpp ne que rek man maa doon capitaine bi waaw match bi nag tant que jeexagul doo mën a xam mais li nga xam ne en tout cas man en tant que maire d' abord vis-à-vis de mes collègues du conseil mhm. il faut que ma defal leen une restitution mhm. parce que c' est une équipe c' vrai que on parle du conseil municipal mhm. et au-delà du conseil ña nga xam ne en tout cas ñoom la daa ñu toog waxtaan ci suñu biir dans le cadre de la coalition bi nga xam ne moo fi nekk ak bi nga xam ne moom la ñuy mettre en place bu ko defee ce sera l' affaire de tous ce sera pas buñ la jiitalee di nga jiitu waaw man ku mu ji ba ma wax ma jël mais dafa am loo xamante ne c'est le plus important c'est surtout en tout cas le bilan. loolu moo am solo xam nga boo boo liggéeyee un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans. c'est-à-dire que c'est pas la candidature moo am solo c'est pas en fait coalition bi nga xam ne ngay def mooy toog di déterminer sa à dire que yow dafa am loo xamante ne 2014 ba léegi. dafa am loo xamante ne même bu ko nit yi dul wax. ñoom ñi ngi gis. c'est ça mais bu ñu toogoon tey par exemple ba ex si niveau boo xamante ne. Mhm. defuñu bilan mais jarul sax ñuy toog di waxtaan. donc c'est vraiment pour vous dire que de ce mhm. point de vue en tout cas l'équipe de Hann bel en tout cas euh, bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk man bu may wax équipe du ma wax. taxawu Dakar ba ma bokk gars ñu ngi waaj de. gars yi ñu ngi waaj ñun it ñu ngi waaj ñun pare nañ. Mhm. waaw alors taxawu Dakar nga bokk itam am ñaari euh, candidature déclaration candidature yi fa jëpp Soham Wardini ba mu demee ca diwaanu sali ngeen lël boobu sax fa nga nekkoon ak euh, Barthélemy yi itam bokk na si seen kuréel euh, kon tey monsieur le maire yow itam ba xam photo yu ville de Dakar itam soxalu la. waaw mais xam nga dañoo eggagul ci moment bi nga xam ne dañu naan kii mooy candidat. Mhm. moo tax politique. dafa benn lu ci jiitu mooy sago. vouloir être candidat ne veut pas dire je suis candidat xoolal jamono ji ñu toll rek bari na candidat yoo xamante ne da ngay gis ku tëdd kaw la rek jël Facebook defar benn euh, créa bu rafet jël teg rek commencé candidat euh, bokk kii bokk lële alors que du loolu c'est pas ça cest à di que la ngay ut. Mhm. loolu askan wi ñoo la koy jox. Hmm. dafa laaj nga mettre en place benn plateforme benn coalition. Hmm. mooy benn bëgg fa lu baax na mi nga am un programme. lan moo war a tax équipe bi fi nekk ñu jëlee leen fi pour teg leen fi ñun en tout cas cadre bi nga xam ne moom nañu nekk. Hmm. muy man di madame le maire Soham El Wardini di Barthélémy Dias et Khalifa Sall. li nga xam ne man moom laa mën a wax de manière officielle. amul benn problème bu am. ci suñu diggante ñun ci suñu biir diggante Barthélemy Dias ak Soham mm-hmm. Barthélemy wax na li nga xam ne moom la bëgg mm-hmm. mais kooku c'est pas un problème wala am amu ci droit mais de Dakar ku nekk am na ci droit mm-hmm. mais dafa am foo xamante ne bu ñu fa eggee muy Soham El Wardini di euh, Barthélemy Dias mën na am bu ñu mettre cadre boo xamante ne dañu naan Samba mooy suñu candidat wala ñu ne Babacar Mbengue mooy suñu candidat mais dañ fa eggagul on à six mois des élections dafa am loo xamante ne nañ ci bàyyi xel. fan yii yëpp ñu ngi la naan le quinze nañu ubbi liste yi le quinze suba la est-ce que dañuy ubbi liste yi moo tax il faut faire attention na yi demee sago. na yi def nank. xamaguñu ndegam élection. dana am le vingt trois juin. le chef de l'État jël na benn décret pour dire que. élection yi bëgg nañ ko organiser le vingt trois juin. mais boo xoolee li nga xam ne mooy code électoral. ni mu organiser élection ak disposition yi nga xam ne war nañ ko jël. Mhm. foofu dafa am lu bare lu ci des. parce que xamaguñu fu ñu jëm. mais jàpp nañ ne que. Mhm. c'est le 23 juin. Mhm. mais jàpp nañ ne que six mois avant élection mënuñu changer le code électoral. si la date du 23 juin est maintenue. le 5 novembre ci nañuy déposer liste yi te bu ñu déposer liste yi ci nañuy xam kan mooy candidat. jàpp nañu également que bu fekkee ne. dañu war a dem élection ci li nga xam ne dans le dialogue politique am nañu des consensus forts benn ci consensus yi mooy nee nañu daañu changer les textes de telle sorte que tête de liste bi mooy ki nga xam ne mooy candidat bi et il est élu au suffrage direct direct xam mhm. nga loolu déjà bu fekkee ne loolu def nañ ko mhm. ñu yóbbu ko assemblée ba député yi voté ko mhm. dafay changer lu bare par rapport à la nature de la coalition par rapport ak ñi nga xam ne ñoo war a ànd ak par rapport ak même campagne bi ni mu war a demee. loolu mooy. dès le cinq déjà bu ñu xamee ne diw candidat la rek. tout de suite dana leeral lu bari. ok donc vraiment c'est pour vous dire que de ce point de vue. am na luy ñëw. Mhm. Euh, xamaguñu fu mu ci toll. Mhm. Euh, pour man je pense que li opinion bi war a retenir. Mhm. le cinq. mooy diw mooy candidat taxawu Dakar. pour la mairie de Dakar. te di ngeen jàpp ni di ngeen ci am consensus. bu am solo mais bien sûr parce que ñun yàgg nañu ànd. man mi di wax ak yow 2002. Mhm. j'étais dans le CPC. Mhm. nekkoon tête de liste majoritaire. 2009 mhm. Benno Siggil Sénégal tête de liste majoritaire. 2014 donc am na ci jaar jaar yoo xamante ne lu ñu xam la lu ñu maîtriser la. donc du loo xamante ne bés bu wax jotee rek. daa ñu ci wax et incha allah dans le taxawu Dakar on trouvera en tout cas comme ni ñu ko daan faral di defee. di nga toog dégg c'est normal mhm. que bu ñu amee un camarade am ambition yi mhm. d'ailleurs on encourage cela mhm. mais li ci am solo mooy na opinion bi jàpp la nga xam ne mooy finalité bi kan mooy candidat bi am na solo en tout cas monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci nu ñu wuyulee wuy see invitation bi amoon nañ mbégte itam waxtaan ak yow ci li nga xam ne moom moo jëm ci commune bu Hann bel ñu bàyyi la euh, nga wax ñu si say impression ci sa kàddu gu mujj waaw dama lay euh, remercier Mbemba ci euh, invitation bi. Mhm. mais surtout euh, intérêt bi nga xam ne porte ngeen ko am ngeen ko pour la commune de Hann bel mhm. donc muy commune bu yaatu en termes de superficie. Mhm. mun naa ne à part Yoff mooy commune bi gën a yaatu. 1277 hectares. zone bi gën a industrialisée. zone bi nga xam ne am na zone ferroviaire. parce que terre bi fa la atelier bi gën a mag di nekk. train euh, mun naa ne la gare routière fa la nekk. Mhm. poumon vert le park de Hann. donc muy le parc de Hann. Mhm. Euh, euh, mhm. également donc c' est vraiment pour vous dire que Hann bel dafa nekk une commune utile bu ñu ni ko économique économie ni ko économiste yi di waxee. mun naa ne c' est la commune utile de Dakar ci wàllu koom. en tout cas donc nga apporter ci donc vraiment ñu mën a discuter. autour de li nga xam ne. moo nekk développement local ci émission gox bi donc di la remercier di remercier également le technicien et toute l'équipe de Rewmi FM donc euh, di remercier également donc euh, ñi nga xam ne mooy suñu auditeurs yi auditeur Rewmi FM ci émission bi xam naa du ñàkk daañu amaat d'autres rencontres gën a yaatal en tout cas le moment venu par rapport ak li nga xam ne en tout cas moo waral waxtaan bi di la ah. gërëm di la sant jërëjëf am na solo di ko sant di ko gërëm mbokk yi di leen jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi